صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر màggal Touba gii commune bu Touba amal ay mesures yu am solo jëmale ko si population bi ngir nag waaye màggal si bu nu ñëwee mën na nekk si condition yu baax loolee ñi ngi ko biral si conférence bu ñu doon amal commission yi seq liggéey bi leeral ko buñ ko tàmbalee si wàllu pièces yi nga xamante ni ñooy doxal courant bi lu si mel ni ay lamp ak ay fil yu ñu war a changé donte sax buñ sukkandikoo si ñoom nekkul seen compétence waaye nag jël nañu ay décision ngir changé ko si mbooleem gox ak barab yi nekk si Touba maire bi amal na participation si wàllub nettoyage bi jël nag lu takku si wàllub gasoil fukki junni ak juróom-ñaar si litre carburant la jël séddale ko commission bi. bi nga xamee ne jublu nañ ci lu mel noonu jël nañ 17000 litres de gasoil moom lañu jël bi ñu ko séddalee nag mooy lii. treize mille litres yi jox nañ ko commission bi nga xam si ne moo jël nañ ci trois mille jox ko Baye Fall jël jël eh, non mille mille mille mille mille litres autant pour moi lañ jël jox ko Baye Fall yi jël jox ko si vous faites la somme calculez loolu treize mille plus mille plus trois mille ça fait mille loolu lañ jël mettre la disposition ci action yi nga xam ne si mooy action. ponctuel yi nga xam ne si moo ko tax maire bi yemul foofu bu ñu sukkandikoo si ñi doon amal waxtaan bi nekkat jàppale nañu waa OFOR ñi yor wàllu forage bi jël lu tolloog vingt batterie yi nga xamante ni bokk na si liy doxal forage yi ñu jënd ko jox leen ko ba tey si liggéey yi nga xamante ni maire bi mi ngi koy amal si màggal Tuubaa gi wàllu hébergement ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi ñoom ñoo leen ko yembalal ñaari téeméeri liitre yoo xamante ni mooy produit pérical yu service d'hygiène di yox chaque jour ngir nag mën a dem pompe dëkk bi boole kook ay association groupement développement yoo xamante ni ñoo ngi yëngu si liggéey bu nu mel ñoom jàppale na leen si appuyé na commission d' organisation bu magal Touba si ñaari téeméeri voyage si oto yi nga xamante ni ñooy jël ndox yi bàyyeekoo si fosse septique yi ngir ñu mën koo yóbbu ca barab yooyu nekk si kaddu ballo ji ak Mbàkke maire bi amalit action poudrage maanaam pomp dëkk bi ngir larve yeeg yoo yeeg yi nga xamante ni mooy lor askan wi ñu mën leen fagaagal ba benn feebar du dugg ci dëkk bi ci période màggal Touba. bu màggal jotee comme màggal événement spécial la il faut des mesures spéciales loolu moo tax bu ñëwee ci mel noonu danañ def ay actions ponctuelles yoo xam ne ci foofu la jëm. daje bi bu nu sukkandikoo ci commission bi yor wàllu wu nu mel maire bi nag ñu ni amal na liggéey bu yaatu ci Touba ñëw nañu ci wàllu sécurité ñëw ci bouche d'incendie yi nga xamante ni ñoo ngi ko yóbbu ci fukki gox ak ñaar. wàllub santé ñu tabax nañu ay poste de santé ak ay maternité logement bu ICP beeg sage bi di nekk HLM Alieu Touba Bagdad ñoo ko tabax boole kook équipement indi ñaari corbillard ñu nekk nag jamono ji di tabax poste de santé bu Daaru Karim Kera Mbay Daaru Marnan 2 waaye tamit am na yu ñu lu si mel ni Ndamaatu ak Alieu mairie bu tubaab ba tey nii ngir jàppale bërëbu pajukaay yooyu dugal na si tollook ñaar fukk million ak ñeent ngir jënd ay garab ak fukki junni ak ñett si litre carburant ngir ñu mën a yóbbu malade yi ci ambulance yi bu dee wàllub courant bi yokk nañu fukki agent yoo xamante ni sax ñoo tas si biir dëkk bi ngir nag amal entretien beeg maintenance bi adduction de gox yi di daaru kaa guy naabee beleel foofu moom yóbbu nañ fa ndox ba mu mat sëkk wàllub jàng beeg jàngale bi tabax nañu ay salle de classe ci gox yi di daaru karim bangaaj keera mbay lu tolloog juróom-ñaari téeméer si ay table banc jënd nañ ko bale kook ay fourniture scolaire assainissement dellusiwaat nañ si ni kat maire bi jënd na ay camion hydrocarbure ngir na xeex ak inondation bi camion yooyu maire bi sax moom la jëloon jébbal ko sapeur pompier si nawet bi ngir ñu mën a xeex ak tamit inondation yooyu si wàllub social ñu ni maire bi dina amal ay action lu si mel ni joxe ay dund si weeru koor gi lu tolloog 30 ton de riz sax nag joxe woon nan ko 20 tonnes suukar loolee di solidarité tabaski bi jël nañu 24 millions jox ko ñu ko yellool waaye tamit boole koog tamxarit bi ñaar fukki nag ak ñaar la ñu joxe mbëbët yi nag commune bu Touba ñu ngi ko amal si bi ñuy leeral taskatu xibaar yi seen taxawaay si màggal Touba صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر